naa Fatima wala Aïcha Fatima la jigéen ko romb rek mu ne waaw jigéen gii de mbiccam malaanam mi mu woddoo ak a gudd lii rek la wax yonent bi woolu ko ne ko waccul mu ne man sama xel teeyut ba may mu locc lumbu deret wu ñuul kooku génn ci gémmañam mu ne ko li ngay nekk nekk sangu jigéen ñi lumbu wii bu reesee woon ci sa biir kenn mu la tere dem safara te yaa ngi ko jëlee ci sa moromam jigéen mi la romb nga ne mbiccam malaanam mi mu woddoo ak a gudd kon nañ mën nañ moytandiku jëw fanaanoo julli ba bër set nim metti nga wax genn kaddu rek mu yàq loola lepp jang alquran nim metti nga wax genn kaddu mu yàq ko hor weeru kor ni mu metti nga wax genn kaddu mu yàq ko neena leg leg nit wax ben kaddu japp ne lu oyaf la fekk genn kaddu goga mën nako duggal ci bir safara xóotaayu lu mar juróom-ñaar fukki at assalamu alaykum alaykum ye assalamu fàttee cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti door nga mën ko njëkk am bul fàttee cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti door nga mën ko njëkk am kon ay yaa ngoog bëri na koy xeeb fekk mo la hëpp ciir ci yàlla kon nañ bàyyi xeebante ci juddu yi ko dàq mu yóbbu la ci aadama nañ alal yi alal dafa am ci ñum toxaloo ñëw ci yow nga dem bàyyi ko fi mbaamu dem bàyyi la fi bu ñu xeebante ci ay ndomba tànk yi nga xam ne dafa am ci ñum tekkee koo ñëw ci yow waaye am na ci ñoo xam ne boo leen joxee ndomba tànk rek ñu fuuy commencé ne soppi seen portable ya numéro rek leen xamee woon ba ñuy uti amatuñ ko àndandoor yañ amoon amatuñ ko ñañ doon toog ak amatuñ seen jot ñi leen doon jàppale tamit gisatuñ leen waaye nit ñi tamit ñàkk fayda bu ñu leen soxlawaatee rek ñëwaat wax wax yu neex rek ñu àndaat ak ñoom tamit léegi-léegi nga gis koo xam ne juróomi at yëpp benn saako ceeb la jaayee boppam Kiri bi suufee na mi hati maanaam juróomi at ci benn saako ceeb xam nga ne loola na ñaari junde kii ñëw jaayee boppam benn tiset nga ne photo cay nekk muy yooxu rek du añ du reer du julli tusubaar ak tàkkusaan yooyu yëpp pertement la nit dafa foor kenn waru koo jaay warta jaay boppam timit Legi na mi ngi wax ci jor lu ñaaw njortu lu ñaaw waral jëw moo mu lëkkale leen ñoom ñaar ñaaw ci rek ko bëri na koy jëw di yàq deram lépp boo toppee tànk ya damaa foog de boo demee de te waat naa ci yàlla boo toppee tànk ya kenn demut loolu rek lépp loolu moo ca nekk dañ maa wax damaa foog damaa def nangam boo demee rek fekk dara dëgëru ci moo tax kon njortu ñaw njort la lislaam bëgg mee bëggul ñaaw njortu ñaaw njortu baaxut jëw tamit wax naa la ko lu bon la ku ko def mi ngi mel ni yaa ngi tiim sa moromam nit mu dee nga koy lekk loolu moo gën a garaaw mbir moo gën a gaaw moo gën a garaaw mbaam yi ñu doon kon kon képp kuy jëw rek yaa yaa ngi lekk yaa ngi lekk mbedd mbaam moo tax moom aaya ji ñaaw njortu gi moo tax a jug nga xam ne kon jëw léeg-léeg benn baat bu oyof ndeke bu garaaw la yonent bi dafa daan def bu demaan xare day jël kenn ku néew doole boole ko ñaar ñu néew doole ñaar ñu am doole na yow mu new doole mi dimbaleel ñaar ñu am doole gi ci sa doole ñoom tamit ñi dimbaleel ci seen wërsëg nga leen yóbbuwaale ci sa kartan ñi la yóbbuwaale tamit ci seen bool bi ku xam doxalin la léegi nag ñaar ñim boole woon nag Salman al-Farisi Salman ñëw rek sonn sonnutu togg ñam toggut añ pare ne ko ana añ bi mu ne damaa ñëw rek nelaw fàtte naa togg añ ñu ne ko kon dawal léegi togg añ xaju fi nga dem ci kër Sayyiduna Muhammad bu fa ñam nekkee mu may ñu mu dem ci yonantu ba yonantu bi ne ko demal ki bëkk néeg bi usaamatu usaamatu ne ko xool naa dara nekkut fi mu ñëw ne leen ah usaamatu nee na dara nekkut fi mu ne ah dafa nay rek bañ ñoo jox mais daraa nga fa ndeke loolu jëw la <laughs> ñu mu ñëwaat ñu ne ko kon demal ca sahaba ya demal ci aboubacar demal ci sayyidina omar aliyu bul bàyyi kenn mu dem wër ñooña ñëpp amul dara mu ñëw nag ba mu ñëwee mu ne ko dem naa ci sahaba ñu ne ko ah kii daal ko ko yónni woon géej sax du andi ndox xam nga léeg-léeg nit wax ko ndeke ñaari baat yi jàpp nga ne lu oyof la ndeke lu garaaw la ca yàlla mi ngi mel ni tiim sa moromam nit ku dee ngeen bokk ndey ak baay maa ngeen bokk baay nga tiim ko di ko lekk xam nga loolu loolu garaaw na yàgg nañ koo wax sayyidatuna Fatima wala Aïcha Fatima la jigéen a ko romb rek mu ne waaw jigéen gii de mbiccam malaanam mi mu woddoo ak a gudd lii rek la wax yonent bi woolu ko ne ko waccul mu ne man sama xel teeyut ba may mu locc lumbu ñuul kooku génn ci gémmañam mu ne ko li ngay nekk nekk sangu jigéen ñi lumbu wi bu reesee woon ci sa biir kenn mu laa tere dem safara te yaa ngi ko jëlee ci sa moromam jigéen mi la bu nga ne mbiccam malaanam mi mu waddoo ak a gudd ñun nag suñu jamonooy léegi ji gaa yu ci bëri buñ añee jëw lañ koy reesalee jëw rek waaye tamit bu ñu bu ñu reeree jëw lañ koy reesalee bu ñu ndékkee jëw lañ koy reesalee garan place yi teg ataaya yi jëw rek ataaya kat ci garan place ci jëw yombut tek baraat ngay xaar deuxième bi di jëw rek ba ba ba ba deuxième bi ñor ngay xaar troisième bi di jëw rek kon ñet ñi mu ci jëw yombul tok tok katu manam bàyyi buntu kër ak katu manam gara place ki datti ya ñu nekk ci ba ñoo xam loola di tok ci buntu juma yak eh, garab yu sedd ya tok ca ñetti place yi te do jëw yombut motax yonent bi téré won gara place nañ ko bayyi dañ ko saxaaba yi ne ko dañu foog dara neeku ci mu ne kon nak jox leen haq jox leen yoon haqam bi wan leen ko yoon ta ngeen fek seen làmmeñe seen bëdi ci jëmi nit ñi lool nak kenn mënu ko ci ji jamono motax bo bëggee noppalu bayil gara place bayil mun na yi ñu ay ay ay manam atay dalay tardel yow yaangi tok di def leewal bi leewal baa def liggéeyam di bax ba nga wara sukar yow nga toog newoo ci dara yaa ngi tardé ataay bi moom mi ngi def liggéeyam def na liggéeyam ci lawal bi ak deuxième bi ak troisième bi yëpp foofa yow nga nekk fa di wax rek yaa ngi tardé takk ngay jëw tamit di ko sànni xeer moo la féetee kanam ndax ñaara fi ne nekk ca kanam di enquête nga nekk ca gannaaw di ko joxe rek waaye mënoo boole ñaari kon jëw kat yëpp foo leen fekk ñaareel ca gannaaw lañ nekk te ji jamono ñi gën a ayib gën a sikk gën a bon ñoo gën a mën a ayibal nit ñi ñoo gën a mën a sikk nit ñi ñoo gën a mën a wax lu bon ci nit ñi waxkatu lu bon foo fekk moo gën a bon ci nit ñi te loolu moo bëri tey kon nañ mën nañ moytandi ko jëw fanaanoo julli ba bër nim méttee nga wax genn kàddu rek mu yàq loola lépp jàng alquran nim méttee nga wax genn kàddu mu yàq ko xoor weeru koor ni mu méttee nga wax genn kàddu mu yàq ko nee na léeg nit wax benn kàddu jàpp ne lu oyof la fekk genn kàddu googa mën na koo dugal ci biir safara xóotaayu lu mat juróom-ñaar fukki at dañ ci bàyyi xel taxsibunahu haynan fekk wa huwa inda azimun kon nañu fexe yilif suñu làmmeñ hasan al basri yu benn waaye dafa ñu war dama dégg na dag maa jëw mu ne ko yow yaa ñàkk fayda man ñàkk naa fayda gu day ni jël sama yiw di ko may man ñàkkee naa fayda loola loolu la ko tontu kon képp koo xam ne yaa ngi jëw nit ñi yaay ki ñàkk fayda am lu baax ba pare jalal bi ko jox ko ndigal ñooñu mujj di la top nga dem safara lu ko jar kon téel sa làmmeñ nga jema doylo sa sik nit ku nek mëno mukki ci ñaar khadimu rasul dafa ka daan wax mu ne kenn nga ci ñaar ñi ben ngay ku am sik waaw kon fàttalikul sa sik yi nga di joy diko tuub jéem a wala ngay ku amul sik kon gorul nga xexal sa bakkan ba ñak sik gogo sax ci yow waaw ñaar yi kum ne ci yow koy tala jow te ñaar yi bu mujj ba sax da koo wax ngir xormaal mais bu njëkk bi moo gën a bëri ci nit ñi kon kenn ku ci nekk sa sikki bopp tudd ko te nga bàyyi sikki nga yëg ne yow muy tudd sikki nit ñi ñaari bët dong nga yore te nit ñoom ay bët lañ yore boo ko boolee ëpp na ay millions yi bët kon nag jar na bàyyi xel mu ne yaa ayyuha alladina e yéen gaay nga xam ne amanoo gëm nañ alquran ni boo teet leen kasiran lu bëri mina sanni ci njortu inna baxda sanni naka lenn ci njortu yi ismun bàkkaar rekk lay bijji wala tajassasu bu leen bu leen bu leen maanaam raju wala yaxta bu jëw du baxdukum lenn ci yéen baxdan leen ay bu ndax dafa bëgg ahadukum kenn ci lekk ma ak yàpp moromam ma mooy yàq yàpp mbokkam ma mayitan mbir mu muy aji dee ñu ne ko kenn bëggul ko mu ne kon fa kër hitumoohu sib sibleen ko te mooy sib jëw kon wattaqu na ngeen ragal laaha yàlla inna allaha naka yalla thawabun thawabun manam tuba nangu ha kon tubla rahimun ku bëri yërmande la ci ku tuub asalaamu alaykum aleykum ye assalamu alaykum alaykum ye assalamu